dama jàpp ne mënuñu fàtte ay nit ñoo xam ne Sénégal dafa leen jàngal former leen di leen fay ñu jël ay décision yoo xam ne moo taal réew mi te ñëpp xam nañ ne amul woon benn fondement loolu man duma ko fàtte. te askanu Sénégal dañ ko war di fàttaliku pour nit ñi xam ne ëllëg nii la justice war a fonctionner pour ñu jubanti justice. c'est extrêmement important. d'accord alors loolu nga di ko naqarlu tey justice am ci moo ko mën a régler pour justice am ci. mi ngi dépendre ci yéen ñi nga xam ne tey yéen a yor manette yi yéen a ko yore. nan ngeen koy liggéentee loolu doon na yittee ñëpp. boo ko laajtee waxuma waxuma ñi ci ñàkk seen bakkan. waaw ñu dem nañu mais ñu ci am gaañu gaañu. non dañ koy leeral ak leneen ak leneen. lépp nañuy leeral dinañ dàmp ñi nga xam ne dañ ci cee loru parce que le dommage peut être physique matériel ou même immatériel mais ñi ci loru rek de façon donte texte bi génn ko. deuxième bi mooy li am solo mooy mhm. dama jàpp ne. ñi ciy responsable yoon dina war na def liggéeyam te dina def liggéeyam pour identifier leen pour yoon def liggéeyam en toute objectivité loolu mooy ñaar xam nga dégg nga fi débat sur le pôle judiciaire financier pôle judiciaire financier boobu noonu man de bu fekkee dama bokk ci régime bi weesu man dama koy ñeme parce que mënuñ ma ci condamné bu fekkee defuma dara parce que dafa wuteeg CREI bi nga xam ne moom lañ génnee woon brandir ko contre dignitaire régime Abdoulaye Wade bi ci jiitu mooy pôle judiciaire financier bi ci juridiction yi la bokk de droit commun yi kon bokkul ak CREI yi nga xam ne juridiction la boo xam ne dañoo renverser la charge de la preuve nga xam ne dañuy ñëw gis ay signes rek juridiction d'exception merci mhm. beaucoup loolu mooy terme mhm. nga xam ne dañuy ñëw rek adresser la mise en demeure procureur spécial bi ne la fan nga jëlee sa alal yi après yow yaa war a indi ay firnde te pourtant mhm. moom moo la accusé loolu du am ci pôle judiciaire financier deuxième bi mooy dafa am première instance nga mën am chambre d'appel alors loolu amul ci CREI amul woon double degré de juridiction loolu mooy li ñuy rafetlu mooy président de la république bu jël décision ne juguñu pour acharné wu ci kenn na yoon def liggéeyam ku mu setal ñu xam ne da set ku mu taqal ñu xam ne da taq loolu moom nag li ci premier ministre waxoon ñun dañ koy assumer mooy ñi ko war a jëmmal dañu war a nekk ay nit ñoo xamante ne bis bu ñu yëkkatee dara kenn du leen wax ne yéen tamit ñu ngi leen toppee dara parce que traîné wuñ benn casserole parce que ay nit ñu set nañ dans leur carrière dañu ay fonctionnaire nañ de. fonctionnaire day am dossier. loolu Pape Ngagne nga baal ma loolu loolu jaxase jaxase mënu ko passé loolu jaxase mënu ko c'est-à-dire jaxase magistrature bi mënu ko jaxase mënu fonctionnaire day am dossier boo yëkkatee lenn pour ñu setal réew mi ñi war a setal dañoo war a set ba pare loolu dafa dafa am solo principe la boo xam ne c'est-à-dire bu ñu dugg ci. ci logique ah, politique politicienne boo xam ne. léegi waxuma yow yaa ko d'accord d'accord est-ce que loolu bu ñu yóbbu ci les magistrats du projet les journalistes du projet. les policiers du projet les gendarmes du projet les les, les non les chanteurs du projet mais est-ce que duñ dem ci loolu quoi mooy li Alioune doon wax l'état pastéfien est-ce que duñu yóbbu ci loolu. léegi yow yow yow fan nga gis ci àdduna bi sénégalais yii far di naan diw laa faral faraluma diw wala diw laa àndal ci politique wala diw votel voter wala voter lu ma diw ku ci nekk dafa am couche boo nekk. ba fi Abdoulaye Wade ak Macky Sall di xëccoo deuxième tour am na maçon yu faral Abdoulaye Wade am na maçon yu faral Macky am na menuisier yu faral Abdoulaye Wade am menuisier yu am na magistrat yoo xam ne Abdoulaye Wade nañu am na magistrat yoo xam ne am na ci jamono jii lay gën a mais loolu moom xanaa wax dëgg yàlla du coow. les magistrats du projet. dama ne. non sénégalais bu ne mën nga am sa gis-gis ci réew mi magistrat projet ak magistrat non projet man mosuma gis loolu yow loolu wax baat boobu yow si yow laa xëy njëkk a déggee xëy na yaa koy jox sens mais munoo bañal woykat yi dina ci am ko faral kii am ko faral kële munoo bañal journaliste yi xëy na dans leur intime conviction même waruñu ko faral ba waruñu ko fësal. Mhm. ku ci ne am sa gis-gis ci réew mi. te nag bu débat public amee ab chroniqueur mën a toog ci tele wala ci site en ligne wax xalaatam mu wuteeg chroniqueur beneen xalaat waaye nag dinañ fàttali fii ne bi ñu dissoudre Pastef le 31 juillet le lendemain 1er août dama gis benn presse bu titré def benn cercueil ne ici repose Pastef loolu tuddeewuma ko journalisme. non mais loolu loolu loolu moom titraay journalisme la non non loolu titraay la rek non dama ne journalisme la du journalisme loolu man du ma si wax li ma lay laaj ba xam non non dama lay laaj ba xam ne journalisme la non non li Imam Ndaw dundoon ci dénigrement une campagne de dénigrement médiatique permanente boo xam ne man dama doon xëy dem tribunal comme ni ma sobee woon nekk étudiant procès bu am ma dem surtout procès yu mag yi Khalifa Sall Imam Ndaw et ma dem toog seetaan su ma xëyee gis ay groupe de presse yi bind loo xam ne ça n'a rien à voir ak li fa wax mais man loolu mënuma ko tuddee journalisme bu sérieux mënuma tuddee journalisme bu sérieux président Ousmane Sonko nga xëy ne Sonko en mauvaise posture ñu ne lu tax nga ne Tullow Oil moo ko financé nangam génnee correspondance boo xam ne faux la ñu xëy Tullow Oil rectifié ñëpp xam ne lii leer ki ñu wax ne moo bind article bi existé wul non c'est-à-dire yow yaa ngi yow yaa ngi répété li defoon réitéré ko c'est-à-dire euh, xoolal. loolu tegul fenn non ngañ en fait loolu nag buñ koy critiquer nga ne ñooñu dañ leen jàppee ne dañoo farfale. non <laughs> mais sénégalais ñooy apprécier xaral rek xaral. c'est aussi simple xam nga man li ma lay wax bokkul ak yi nga lay li ngay wax nii man li ma lay wax yaa ngi tarxis bëgg dugg ci loo xam ni vraiment dool du sujet bi te waxuñu ko mais li ma la bëgg li ma bëgg ñu ñëw ci mooy rationalisation projet bi dañ ko waxoon man projet bi ñuy wax sax vraiment di ko tudd sax vraiment c'est un problème quoi parce que sax yow reconnaître nga non non yow la dugal foofu non non non yow sax reconnaître nga que ni que ni euh, le projet ñu ngi koy xaar ñëwagul donc comme ni ko ni ko ni ko président waxee comme ni ko donc di wax ci projet bi moom vraiment man ma ci wax wala keneen di ci wax cest à dem ngeen ba dugal ci bopp nit ñi loo xam ni c'est du vent cest à loolu loolu aay moo ko mën a def ak ah, sa commentaire la nangul ay moo mën a def ngeen dem ba dugal ci bopp nit ñi non non jël ngelaw dem jël ngelaw def ko ci bopp nit ñi def ko ci xolu nit ñi ba ñu dem voter du vent cest à loolu il faut ngeen aay pour mën ko def. yow tamit nag aay nga trop. non xar non xaaral ci mois. nga ne voté nañ du vent. te mandat bi di mandat wu 5 ans ci 4 mois yooyu nga gis ci ay ministre ak ay DG yoo xam ne ñëpp respecté déclaration de patrimoine ci 4 mois yooyu nga gis ci ñu réglé tabaski bi ci urgence ci condition yu gaaw. ci 4 yoo xamante ne réew mi jël na cap boo xam ne ñëpp xam nañ ne képp kuy liggéey ci administration am na loolu moo am solo gis nga Pape Ngagne dañ ci war a taxaw gis nga responsabilité politique surtout ay haute fonction étatique du ay responsabilité de gestion ay responsabilité d'incarnation la demal nga laaj l'état d'esprit général de tous les fonctionnaires kuy xëy xam nga ne kenn mayatu ngay liggéeyee nu la neexee xam nga ne kenn mayatu la ngay dugg ci njublan gis nga loolu li muy induire ci administration en terme d' efficacité en terme de de maanaam gaawaayu liggéey bi célérité en terme de usagers yi këyit yi ñuy def ñu traité ko dans la diligence loolu xamoo sax lu mu toll mais waxuma ci loolu li am solo la loi la souveraineté économie mu ngi ñëw dinañu xam réew mi ban cap la fixé te yow xam nga ne le pays rythme bi mu jël c'est un rythme de sérénité rythme bi mu jël c'est un rythme de rigueur mais rythme bi mu jël rythme mu la boo xam ne président de la république premier ministre ministre yi DG yi ñëpp ñu ne lii mooy revenu yi lu personne am telle personne am amul benn enrichissement illicite bu ñuy nangul benn nit commençant ci président de la république wàcc ba ci suuf te moom moo ko wax war la ko premier ministre bu wàcc ba ci suuf gis nga loolu soo ko xeebee man de man dama koy wax tout temps heure su ma tëddee nelaw xam nga lan laay wax <laughs> leer na ma ne dékk naa sama alal ñoo xam ne duñ ci jël cent franc man loolu rek bilan la ci man waxuma la ak les réalisations économiques et sociales qui vont se reproduire te sénégalais yi dinañ xam fan la ñu nekk. d' accord alors ci rationalisation bi ma la junj tout à l'heure euh, maanaam yaxanal alalu réew mi gis naa sax tey président def benn euh, di soudre euh, commission. dialogue waaw dialogue des territoires. Mm-hmm. est vrai que noonu mu ko defee mënoon na ko def ci yeneen yi ah. parce non xam nga. lële décret la d'accord yaay loi la mais pourquoi mënul dem assemblée nationale pour def ko fa pour demander ko ñu xam ni sax am na volonté loolu bokk na ci li nga xam ni waxoon na ko cest nga jéem bu baaxee baax na su baaxul ñu xam ni baaxul c'est-à-dire pourquoi ko ci yeneen yi loolu laa loolu laa bëgg a xam. léegi xam nga nag yow yow yow da ngaa généreux parce que da nga baax danga fi gis ay leader politique duñu ay leader politique parce que ku munta am parrainage doo leader politique bu sérieux ñu bind seen page Facebook ne. ñoom président daal bi dafa war a dissoudre HCCT lu tax gaaw ci ak conseil conseil économique social et environnemental te wax dëgg yàlla nag loo gàtt gàtt xam-xam war ngaa xam ni. sa bugaan seulement assemblée nationale moo ko mën a def. loi la mais loi constitutionnelle la xanaa nag constitution même boo tayalee lire parce que am na ñoo xam ne moom naa duñ gëstu. ñaar war a ñetteelu page bi di nga gis article 6 ne la constitution institution yi la wax pour réew mi président de la république assemblée nationale gouvernement tuddal la ci HCCT ak conseil économique social il faut nga am majorité trois cinquième des députés 99 yow gëm nga ne député Benno Bokk Yaakaar yi ñoom ñooy voté projet de loi pour na ma yàlla baal li ëpp ci seen militant mun na am clientèle politique nañ ko war a mun tuddee yu nekk ci institution pour ñu jëlee leen fa lu nekk boo koy yëkkati da ngay xam mais pourquoi pas loolu duñ ko def duñ ko def parce que waxuñu ko ñun ñoo ko wax suñu gis-gis du seen gis-gis ils ne sont pas d' accord sur ça c' est nous qui sommes d' accord sur ça dinañ ko yëkkati ci moment bi mu opportun président de la République dina ko def parce que engagement kon loolu moo tax xam nga la moo am looloo tax premier ministre nangu fa dem def déclaration de politique générale c'est-à-dire non loolu moo li nga wax ni premier ministre da koo bañ non non non majorité bi nga xam ni kon nangu nga mais depuis ma ngañ tu reconnais que ngañ loolu mënaguñ ko def matériellement président li mu mën a def la dindi mani léegi yow doo saluer loolu maanaam ñe man maa wax ne damay dissoudre institution yu amul njëriñ ma dindi benn parce que moom laa am mën a jël par décret yeneen yu ma mën a jël décret yëpp dinaa ko def ah, d'accord am boo xam ne assemblée ko war a def nga taxamu naan ma la moo tax defagoo boobu te nga xam ne assemblée moo ko bëgg a def alors léegi Ngagne c'est incroyable d'accord Ngagne merci léegi Ngagne mauvaise foi ak gàtt xam-xam mënut a weesu loolu Ngagne non ci ci kan mauvaise foi ak gàtt yow d'accord léegi non parler de leader politique d'accord ah, mooy ki ngay gaaruwaale ah gaaruwaale. oui non Bougane buggaan Dany c'est un acteur c'est un acteur médiatique sénégalais léegi ma ni. un acteur économique court s'il vous plaît. <laughs> s'il vous plaît d'accord léegi. da nga ma wax tout à l'heure ni ma du waa Benno Bokk Yaakaar ñooy voté luy taj luy tas institution yooyu parce que ñoom ñoo fa majoritaire ma ni la majoritaire boobu ñu fa nekk moo tax ce premier ministre ragal fa dem assemblée nationale def fa déclaration de politique générale am. yow yow boo tëddoon ba digg guddi 4 heures du matin ñu woo la ñeel la président Ousmane Sonko day ragal député Benno yi di ko gëm.